subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimu hakim rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu te di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm suñu borom dolli xéewal yi yàlla faj aajo yi dolli sutura yi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu mbokk jullit yépp ak fu ñu a nekk di ñu déglu ah, di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm foofu ngeen nekk di ziare mbokk yi xam ne ñoo nekk Sénégal rawatina mbokk yi nekk ah, Europe moo xam Italie France Amérique wala ñi nga xamante ni dañoo nekk ci dëkk africain yi waaye nag di safoo seen seen bii nga ni mooy Nouroullahi Sam TV di leen ziyaare ñépp nag bàyyiwul kenn waaye di beral nuyoo ak cant ak ngërmaande suñu mbokk mu baax nekk ba Paris France ah bu déggee nuyoo bi rek da xam ni moom lañu waxaat ñu koy ñaanal yàlla baax si borom defal ko jàmm ak teewal ndax dëgg yàlla matériel bu baree bare la jënd def ko àddiya yónnee ñu ko pour ñu gën a mën a def liggéey bi lépp mu def rek ngir jëm yàlla waaye alxuraan day wax nii wa ammaa bi nihmati rabbika fa xadis bu la nit defalee lu baax na koy waxtaane ndax xam ngeen ne saar boobu ngi ñuy wax wadduhaa wa layli izaa sajjaa maa waddaaka rabbuka wa maa qallaa wala al-aaxiratu xayrun laka mina al-uulaa wala sawfa yu'tiika rabbuka fatardaa ba saar bi jeex aay bi ci mujj mooy wa ammaa bi ni'mati rabbika fa xadiis yàlla dafa laaj yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ah ni ko ndax fekk wala nga nekkoon koo xam ah, ay waajur ma jàppale dimbali la ndax fekk wala nga nekk réer. ma jox la xam-xam bi gën ca xam-xam muy qur'an wa wajadaka daalan fa hada ma jox la li gën ci xam-xam muy al qur'an mu nekk lo xamanteni mo la gindi waye ma fekkoon la nga nekk bu ñak yow yonent bi ma def la nga nekk womal woomal waaw yàlla daan eh, daan koy wax may yeen ko defal yépp daan di ko lekk li ma la defal ci ay xéewal ko ay waxtaane waaw ah, moo tax mu ne waa maa bi ni'mati rabbika fa xadis nit boo defalee la defalee lu baax na nga yàlla ne kon eh, eh, liggéey bi ndax wax dëgg eh, ay matériel yu am solo. wax yàlla jàppale ñu ko ci liggéey bi ñu ngi leen di ziar bu baax jërë ngeen jëf noonu la suñu borom waxee yéen saa salaam ba tey ni ko ci hadiisu qudsi yi man lam yaskuri naasa laa yaskuri laah waaw wax na ko ni ku santul nit boo ma santee man yàlla du ma nangu ndax yàlla lim lay defal yépp ci nit la yàlla defal lépp lu baax ak lu ma di doon yàlla mi koy jaarale ci nit ba ci yére bi ngay sol néeg bi nga dëkk ni dafa tabax bunt yeeg fenetar yeeg yëpp nit a ko defar dàll yi ngay sol ak mbaxana yaag ya ca aj yëpp nit a ko defar kon lépp ngi ci nit moo tax yàlla mu ne ni ngeen ci ñëpp ci gën mooy ki leen di liggéeyal nit ñëpp ndajee ki ci gën mooy ki nga ni dafay dox ci service nit ñi di leen liggéeyal di def ci ñoom lu baax xayru naas xaadimuhum kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen siyaara ba ak mboolem koo xamante ni rek yaa ngi jël sa addiya di ko yónnee ñu ngi la ciy ñaanal suñu borom defal la barke defal la tawféex di delluwaat di ñaan suñu borom ah, lépp li ngeen jëfandikoo ci xam-xam yi ñuy joxe. su ko defee mboolem xam-xam yoo xamante ni ñu ngi koy tàmbal rek ah, lu ci nit jëfandikoo rek yàlla ci yàlla def barke ci barke yàlla bi alayhi wa sallam di ziare ñëpp nag bàyyi wuñ kenn loolu rek la ko alxuraan waxee. Euh, wa amma maa yanfaxu naasa fa yanqusu fil ardi nee na ki nga xamante ne day jëriñ mbindeef yi kooku day yàgg ci kaw suuf si ah day yàgg ci kaw suuf ah ndax jëriñ boobu muy jëriñ mbindeef yi même bu yàlla mu génn àddina dafay nekk koo xamante ni ah, ku aw turam di sax ci suuf lay doon ndax dañ koy ah, màggal di waxtaane ay jaar-jaaram. loolu nag day mel ne nit ki mi ngi dund moom la alxuraan di tudd naan wala taxsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaahum inda rabbihim yurzaquun defe naa noonu la bul njort ñi nga xamante ni nekk na di liggéeyal yàlla ba génn àddina ñoom dañoo faatu bal axyaahum inda rabbihim yurzaquun ña ngay dund fa yàlla yàlla di leen wërsëgal kon ki nga xamante dafay jëriñ mbindeef yi même bu génne àdduna day melni mi ngi dund ba légui ndax njariñam lay dess ci àddina mo xam xam-xam bu doon jàngale la wala jëf ju baax ju mu doon def nit ñi di ko fàttaliku kon jëf ju baax lu am solo la waaye ni mu amee solo nag bala nga ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg nga génne àddina yàlla wala la nga doon def ci lu baax kon da nga ni war seew li nga doon def yépp nekk lu baax ndax man amina saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zalaamin lil abid nee na ku jëf-jëf ju baax ñeel na la yow mi jëf-jëf ju baax ja ah, ñeel ñi nga xamante ni ci yow ndax fali nafsihi dafa yaatu bu dee dangaa baax fali nafsihi dalay topp waaw ah, fali nafsihi ñeel na ko moom boppam dalay topp yow mi jëf-jëf ju baax ji topp say doom topp say sët ndax xam ngeen képp koo xamante ni génn ne ñu ne yonent bi saa mooy maamam Xaydara la sant Sërif su génnee rek ñu war maa ko ngir jëm yonent bi jox la sant dañ ko war maa ngir jëm Sëriñ Tuubaa ndax fali daf si ci Sëriñ Tuubaa koy topp su génnee ñu ne si ñu war maa ko ngir Maam Alaaji su génnee su génnee su génnee même chose ci ñépp nag waaw kon jëf di baax soo ko jëfee dana la dal dal sa njaboot dal sa së dal sa së sëtaat waaye noonu lay jëf ci baax gi wala ngaane tamit wala ngaane ba ci ñi nga xamante ni ay taalibe leen jëm ci si yow ak ay jullit kon jëf ju baax rek moo am solo kon fali fali naf si ca rasulillahi yi fali naf si ca seexul xadim moo topp ñu sant Mbàkke kon jëf ju baax lu am solo la waaye nag safaan ba tamit soo ko jëfee nag suñu borom ne yow rek la ama naa saa faa lay xaar

yàlla yàlla teel ci jëm jëfal baax kon ken? ngi ziare mbokk yépp bàyyiwul kenn ah, di ñaan yàlla defal leen jàmm ak xéewal di ñaan yàlla ah, mbokk yi nga xamante ne ngi voyage di dugg ci ndox mi yàlla yàlla sàmm leen te aar leen ah yàlla yàlla sàmm leen te aar leen te musal leen ci loolu may leen lu gën la ñuy def yàlla yàlla may leen xéewal yu gën la def dugg ci ay gaal di ci ñàkk seeni bakkan ñii di ci loru ñu ngi masawu fan yi nga xamante ni nañ ci waaw ñu ngi leen ci masaw bu baax a baax di ñaan yàlla képp koo xamante ni maanaam am nga ci jaboot rek yàlla yàlla may la xolu muñ ndax lu méttee métti la waaw lu métti la ndax euh, toll ci sa digg àddina am fanweer at ñaar fukki at ak juróom xëy xëy xëy ci loo xamante ni kenn xamul lan la kon yàlla yàlla musal leen te sàmm leen te aana yàlla may leen métier may leen liggéey bu gën loola ñuy def ci barke yonent saa sam te musal leen waaye li ci gën a bari nag yooyu moom yu bari bari seytaane da ciy laxasu seytaane da ciy laxasu jinne yu bon yi tamit dañ ciy laxasu mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu yéeme yéeme la ci àddina kon loolu ñu bàyyi yàlla musal leen may leen lu gën loola waaye ñuy faral di jàngal xam jaaxagum rek waaw aaya bu aaya bu baax ci su ko defee ñuy faral di jàngal xam jaaxagum aaya la bu baax ci kuy tukki wax nañ ni voyage boo xam yaa ngi ciy dem bëgg yàlla musal la na nga koy jàng soo xam ne jàng ànd du huwa baax na fukki yoon ak benn wala nga jàng ànd anu du katos fukki yoon ak ñeent aaya bu baax la waaw ah, boo xam ne def sax 313 waaw ah, ñetti téeméer ak fukk ak ñett di ko jàng dana def gudd fan dana la yàlla dana tax yàlla musal la ci voyage bi ngay nekk ni yàlla defal la nga dem ak jàmm ñëw ak jàmm ci ñëw ak jàmm waaye nag duñu favori sa kenn ci ne jaaral ci ndox mi ndax dara wóoru ci waaw ndox moom da maanaam ci ndox leen alal moo tax ndox dafa nekk loo xamante ni dafa bokk ci junóodullaay dafa bokk ci ah soldaari suñu borom yi mhm. damay ci Euh, alxuraan si borom day ne day wax ni wa maa yaxlamu junuuda rabbika junuuda rabbika illaa huwa ah wa maa yaxlamu junuuda rabbika illaa huwa soldaari yàlla yi kenn xamul seen lim dañoo bari jaan ci lañ bokk ah mala yi ci lañ bokk dafa bari ndox moomu noonu ci la bokk ci soldaari suñu borom yi ci la bokk ci mbindeefalu yàlla yi yoo xamante ni bari na yàlla ñu mu alal ci leen ñaar alal leen kon dañuy ñaan yalla musal ñu waaw waaye di encouragé kenn ci ne ko da nga jël gaal na nga def nangam ñaan yi joxe nag ñaan yi baax la soo ko defee di voyage yi yàlla dana la musal nga defee nit ki dafa war a gëm boromam gëm yàlla te doy noo ko di ko wéetal sooy wéetal yàlla di tudd yàlla di gëm sa borom loolu dana tax doo dugg ci lenn loo xamante ni ah loolu maam dana la indil ay fitna même bu fitna ñëwee tamit dafay nekk lu oyof oyof ci yow ndax tudd yàlla bi nga tudd yàlla ndax nit ki su tudd yàlla xelam day dal waaw buy tudd yàlla xel mi day dal ala bi sikrillahi tatmahinul qulub waxtu way tudd yàlla fitna coonaak yépp bu agsee rek dafay nekk lu oyof oyof ci yow ndax ngëm yàlla gi nekk ci sa jëmm moo tax su ko defee loolu nañ ci bàyyi baax jullit bi lépp lu muy dugg lépp lu muy dugg rek na ci ànd ak Ah, lepp lo xam yaa ci bëgg a dugg wéetal julli ñaari raaka ñaan yàlla ne yàlla maa ngi lay ñaan lii may dugg nii bu fekkee lu gën la ci man yàlla na ko soppal bu dee lu gënul ci man yàlla na ko soppi ba mu gën ci man nga defal ma ko su boobaa bu dee da ngaa jëm ci gaal wala nga jëm ci métier moo xam dara ah, sa avantage nekku ci yàlla mën na la ci musal ndax ñaan nga yàlla mi xam moo la moom mooy sa borom mu musal la waaye tëb tëb dugg ci loo xamante ni da lay wóor ni même bo démé ba ag tamit day ci metti ci sa côté nga wacc fi liggéey bo xamante liggéey bu yaatu la bo xam ne yaa ngi am sa taraange adina di ci di ci suturoowu bu ko démé nga bàyyi ko fi nak daal di dem so ñëwaaté dem à asero ndax sax di nga dellu si waat wa am na yu bari bari jaam bi mu ngi koy def ci adina te li ci bari bari euh man nañu ko tudde sax xaru xaru la xam ne yoo xam ne mu wóor la ni yoon wi ngay jëm ni dara wóoru ci ah, dara wóoru ci géej amul bànqaas kon xale yi nañ wattandiku bu baax lu ñuy dugg nañ ko ah, lu ñuy dugg nañ ko xam te def ci ndànk-ndànk rek ba keroog nga àgg fi nga jëm su ko defee loolu bu baax a baax dañ woon nañ ci def waxtaan bu yaatu incha allah dañ ci ubbi nii tuuti rek waaye dañ ci dalal ay kilifa waxtaan ci def ci ay waxtaan am solo waaye gën a dolliwaat ñaan yàlla ci réew mi yàlla gën fee dolli jàmm ndax feebar yi bari na musiba yi bari na bis bu nekk rek ak yi ngay dégg kon jaam ñi war nañoo góorgóorluwaat delluwaat seen borom surtout nag ñu fonkaat jaamu yàlla fonkaat sell di jéggalu suñ borom di jàng alxuraan di def ay salaat ala nabi di wéet di toroxlu yooyu bokk na ci nga xamante ni dana tax yàlla jéggal ñu dana tax yàlla tamit wàcc yërmaandeem ci ñun waaw waaye ni ma yàlla gi bëree ci àddina bi foy yi bari caaxaan yi bari mën naa waral liy xew lépp ci àddina bi di ci xew nañ góorgóorlu baax ci wéetal suñu borom waaw lu ñu góorgóorlu ci wéetal yàlla doyul waaw yàlla moom dafa bëgg bu koy jéggulu di tuub di toroxlu suñu borom loolu la bëgg jaam bi bu koy def rek jamono ji nekk rek yàlla koy defal sutura kon nañuy sax ci istighfar soo ci mënee def 1947 baax na ba ma nee def astaxfirullah 4444 baax na soo ma nee def 1111 baax na soo ma nee def 5555 ba tey istixfaar baax na istixfaar dara ëpp ko doole ci wërsëg. danga ñu bàyyi ci xel ma baax istixfaar bokk na ci mbir yi nga xamante ni dafay dooli jaam bi wërsëg nit ki waxtu boo xam ne mi ngi def astaxfirullah di jéggulu yàlla wërsëgam day dooleeku. te noonu la ko yàlla doole fan wu gudd ak barke dana ci alxuraan suñu borom muy wax ne fa qultu istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaaran yursili samaa aleykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin waaw nee na bu ngeen dee jiitul yàlla yàlla nee na dinaa leen wàcceel ay xéewal wàcceel leen taw lu ngeen bay rek mu barkeel waaw wàcceel leen ndox mu neex lu ngeen mën ci jariñu man jox leen alal yu bari yom def kum bi am waalin wa baniin ma tëbb leen ay alal tëbb leen ay jabar kon istixfaar lu am solo ci jàmm bi la nit ki dafa war di jéggulu boromam bu xëyee lu man ci astaxfirullaa na ko def comme ni ma léegi am na ñu koy def sax ci lim 1947 def ko ba ni juróom-ñaari yoon nga koy sikkar dana ubbi sa wërsëg dana tax yàlla jéggal la dana tax nga mucc dana tax nga mucc ci lépp ndax yàlla heure boo setee wërsëg daf lay yomb jaam bi heure bu setee rek heure bu jégguloo yàlla ba xolam tooy jéggul suñu borom ba yàlla jéggal ko rek wërsëg daf koy yomb lu mu yóotu rek mën ci jot kon képp ku nekk ci xat-xat mbaa nga nekk ci ay jafe-jafe maa ngi lay dénk na ngay def astaxfirullah soo mënee def 1947 baax na wala nga def 1111 jàppal ko riyaada ba mat juróom-ñaari fan 1111 premier jour bi nga tàmbali ko dimanche deuxième jour bi nga def deux mille deux cent vingt deux troisième jour bi nga def trois mille trois cent trente trois euh, quatrième jour bi quatre mille quatre cent quarante quatre cinquième jour bi cent bi nga def six mille six cent soixante bi nga def sept mille sept cent juróom-ñaari fan yi mat nga koy def weer woo dugg rek def ko incha allah dem ba bokk ci ñi xamante ni ñu am ñu ëpp wërsëg di nga ci bokk te da ngay wicc ku la gis rek xam ni kii mi ci daal. waaw ah, dafay joxe leer day joxe wërsëg day joxe bayre day joxe ubbeeku moom astaxfirullah soo mënee def tamit astaxfirullah azim allazi laa ilaha illa huwa xayru xayru ba tey baax na di def xul wallaahu tamit nga koy liggéey 972 dana tax yàlla jéggal la say bàkkaar te dana tax seen say njëf di baax di ubbeeku kon ah, nañu góorgóorlu baax ci jaamu yàlla waaw nit ki lu mën a nekk rek lu mu di doon rek na ci boole liggéey ak surtout nag rawatina guddi gi bu nit ñiy nelaw nga dagg say nelaw jóg jox ko yàlla di fanaane naafila di def di def istixfaar di jàng alxuraan def salaatu nabi lépp loo mën ci lu baax nga def lu am solo ci jullit bi la ñu bàyyi ci xel bu baax kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi ziare mbokku jullit yépp ak fu ñu mën di nekk ah di ziare ñépp rek bàyyiwul kenn di ñaan yàlla defal ñu jàmm di ñaan yàlla nangu suñu jaamu yàlla yi jaamu yàlla yépp